donc euh, pour en revenir au président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko c'est quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié lui et les membres du parti tous les militants de PASTEF ont beaucoup donné on travaille sur ce projet la depuis des années léegi un groupuscule de personnes ba nga xamante ni il n'ont pas su gérer timing bu ñu leen jox on te donne un mandat tu redemandes un autre mandat ñu joxaat la ko mais yow la l'appétit vient en mangeant nga dem bi ci biir nga fàtte ni mandat ñu lay jox ni ce sont les populations ñoo la ko jox doole ba nga am ni population bi moo la ko jox c'est comme les forces de défense et de sécurité dañoo fàtte ni doole bu ñu am ni population bi moo leen ko jox mhm. s'ils ont autant de pouvoir c'est parce que la population l'a voulu ainsi il fut un temps monsieur Macky Sall était dans l'opposition mais monsieur Macky Sall nous allons Euh, si le euh, Abdoulaye Wade toucher à la Constitution nous allons le déloger chez lui Abdoulaye Wade n'a jamais vu ça le président Abdoulaye Wade n'a jamais vu ça comme de l'insurrection parce que il sait que pays de démocratie donc ñun depuis 2021 on est en train de subir une violence mais inouïe de la part de ce gouvernement de la part des des forces de défense et de sécurité de la part de la justice mais en ce moment-là ñun la constitution du Sénégal nous doon euh, nu mu tudd le droit à la résistance mais boo invoquer sa droit à la résistance ils te disent que tu en train de faire de l'insurrection mm-hmm. il faut voir dans l'histoire ñoo ñoo daan utiliser le moo insurrection ce sont les pays nga xam ne dafa amoon dictature ñoom ñooy utiliser insurrection mm-hmm. mais dans les pays de démocratie un pays démocrate un état de droit quand tu parles de de de, de résistance ils savent exactement ce que tu dis parce que euh, en France la résistance moom moo libéré les Français mm. c'est la résistance qui a libéré les Français c'est la résistance qui qui qui qui a aidé ma qui a libéré Mandela la résistance qui qui a qui euh, les États-Unis contre nu mu tudd américains yi quand les vous savez les migrants qui ont quitté et qui, qui aux États-Unis mm. avec le Canada c'est la résistance qui les a également libérés du Royaume-Uni la résistance est un droit citoyen nit ki sax booy juddu da ngay juddu avec quelque chose da ngay xam lan mooy sa droit lun ne sommes pas nés avec une âme d'esclave c'est vrai que am na ñu judd avec une âme d'esclave ñoom ils sont là prêts à faire des mais am na ñi nga xamante ne xamuñu ko dangay waxtaan ak moom nga ne ko loi bi lii la tëral mu respecté ko man sama doole fii la yem mu respecté ko donc euh, quand on voit ce genre d'injustice que le que les que les patriotes sont en train de ba suñu président Ousmane Sonko fii lañ ko isolé pendant je ne sais pas j'ai j'ai oublié combien de jours mais dañ ko isolé pendant longtemps te amul benn juge bu décerné benn ma mandat y avait aucun aucun aucun papier administratif bu ko justifier ñu def ko ñu ngi leen di seetaan c'est-à-dire que on nous demande nous de subir on nous demande d'encaisser mais koo xamante ni moom ma jël yàttam di dóor kenn du ko wax dara balaa maa dee on nous sort des phrases toutes faites kenn du xeex ak nguur mais nguur mooy kan nguur c'est la population nguur boobu noonu tey bu amee doole parce que population bi moo ko jox doole boobu noonu. Hmm. le pouvoir c'est la population. donc euh, je pense que il faut ñu xoolaat du ñuy def parce que le président Ousmane Sonko c'est pas n'importe qui c'est l'avenir de ce pays donc euh, moom moo tax tous les jeunes ñi bàyyi lu ñuy def ñu fàtte je pense que euh, l'équipe féminine bi ngay wax ni ils ont joué hier je crois. parce que dañoo découragé. déedéet am na ñoo xam ne ñu leen seetaan mais am na ñuy bëri seetaanuñu leen. Hmm. et vraiment c' bien dommage. parce que le sport dafa am importance bu mag a mag. ci biir jeunesse a de la francophonie. y' la mais les gens l' oublient. et ça n'a rien à voir avec le fait que man je suis une actrice politique c' est c' est pas ça c' est que de jeunes sont inquiets pour leur avenir beaucoup de jeunes dañuy yaakaar ne président Ousmane Sonko bu jëlee pouvoir bi mais day développé. ñu bëri duñu du ñu jël bateau yi pour pour pour dem à l'extérieur il y a énormément de choses nga xamante ne le président Ousmane Sonko dafa kii et puis l'espoir l'espoir kenn du ko kenn warul na l'espoir hmm. on parce que quand tu n'as plus d'espoir tu ne vis plus donc ils peuvent pas se permettre d'empêcher que le président Ousmane Sonko ait son pool d'avocats avec tout ramassis de conneries bu bu procureur wax man su ma koy déglu damay rus su ma koy déglu damay rus et